Dóor yaa ngi noonu di waaj a yegg si Gaynde Aliou Cissé yaa noonu Gaynde Aliou Cissé yaa ngi noonu Malick seen yegg si fii ci palais ci teewaay ngi noonu ndeysaan muy image yi ngeen gis motaar xam nga lii mooy lii mooy ngar mi lii mi soxla waaye di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi nuy bàyyi xel ci Dakar Buzz réew maa ngi nii Matar yaa ngi noonu boo gisee xam ne des pour gaynde yi ñëw bareetul ñu ngi noonu ne son excellence monsieur Macky Sall dugg na si ne sànq ci biir pale bi ngir teeru leen nga xam ne tey teeru ñoo toppal yooyu depuis suba ba léegi Malick Fass yaa googu xam nga ñii suba ba léegi lekk ñu naanu ñu. bi dem na ñoo ñëw ah. yaa ngi noonu war nañu fas yi xam nga ni lii mooy réew mi ndeysaan ñu ngi ni di xaarandi lions yi ñëw son excellence monsieur le président Macky Sall ñëw na ci biir pour accueillir leen waaye di jaajëfal Matar Ba ministre des sports wax naa ko sànq. ci ministère am ci leen amee arène nationale ci ministère am ci la senegal jële coupe d'Afrique macha allah. ñëw Malick supporter yaa ngi noonu di ñëw en masse ñoo toppal yooyu suba ba léegi ñii ñoo toppoon supporter équipe bi suba ba waaye ndax kaaraange gi ña ngay ñi bari bari ñu ngi leen di dékku ndeysaan ñu ngi leen di jaajëfal bu réew mi amee jàmm ñoom la bu tëddee mën a nelaw ñoom la police nationale kenn du ñoom doole ko sunu gendarme yi ndeysaan suba ba léegi ñu ngi fi depuis 6 heures du matin ba tey ñu ngi ci ànd ak ñun waaye ñoo ngi ñoo man mi man mi bis këram laa lu wér la lu wér la lépp ngir ngir mbégte mi waaw bis keroog laa añee de te dama ko bokk ak sama mbokk bi histoire da koy bind bis la boo xam ne ndeysaan saan allah li naan ah, l'histoire de Thiat Dara tey Joseph Koto lii la bëggoon ndeysaan si François Bocage lii la bëggoon Bruno Messi lii la bëggoon ndeysaan lii moo la wan loo jàpp jàpp jàpp bàyyil bis bi dina ma sa ñëw mu ñëw daanañ ci toppate daw ay at Mhm. avant le l'indépendance ba léegi amul. tey la ko yàlla dogal. ci teewaayu monsieur le ministre Matar Ba. nee naa ko sa ministère ci leen amee arène nationale. sa ministère ci leen jëlee coupe d'Afrique. yàlla na ndam waaye pale foo sànni baat mu tàkk. waaye takk jërë kenn du ñoom. na leen ma amin waay amin amin ah, waay. Ah, monsieur le ministre des sports ak noonu Matar Ba. Matar Ba ngi noonu nee naa ko sa ministère ci leen amee arène national ci leen amee coupe d'Afrique. Matar Ba dañ ko ñaanal ndeysaan c'est un gagneur la mi ngi noonu di dugg pale Matar Ba ndeysaan mi ngi sol ngeen gis ko mu sol basin bu weex bi noonu tegu drapeau vert jaune rouge bi tey am na ndam am na ndam mbay mbay yëngatul tuuti Malick Gaynde Aliou Cissé yaa ngi noonu ndeysaan oto police baa ngi nii escorté waaw vraiment ndeysaan ndeysaan yaa ngi noonu Malick jour yaa ngi noonu ngay seen noonu car bii la jour yi dugg baa ngi noonu yegsi na ndeysaan car baa ngi noonu kub baa googu ci kaw ku baa ngi noonu tu ndeysaan Malick Zor yaa ngi noonu ndeysaan xam nga lii mooy réew mi oh, lii rafet na lii rafet na lii rafet na lii rafet na Abdou Diallo Abdou Diallo ngi noonu téye coupe bi Abdou Diallo ngi noonu téye coupe lii lanu yàgg daw yàgg doon koo wut tey la ko yàlla dogal Cheikh Kouyaté ngi noonu l'homme social sama capitaine baa ngi noonu Kalidou Koulibaly libali yaa googu joor yaa ngi noonu ña ngay dugg pale ko yor ndeysaan mi ngi foog public jour yaa ngi noonu Pape Abdou Cissé ndeysaan jour yaa ngi noonu ñu ngay dugg ci biir ñu ngay dugg biir palais ñu ngay dugg biir pale waaye nit ñaa ngi xam nit ñaa ngi xam Malick gars yi forcé barrière yi ba am na ñeent ci ñoo xam ne gaañu nan gars yi forcé leen bi am na ci ñenn ci ñoo xam ne gaañu nañu ñi ñaa ngi xam rek Malick blessé bari na ah nag mënut ñàkk ndax mbooloo mel ni toll mbooloo mel ni toll mbooloo mel ni toll mbooloo mel ni toll mbooloo ba tey nit ñaa ngi ñëw jour yi ñëw nañ ba dugg biir pale waaye ba tey nit ñaa ngi ñëw ndeysaan waaw am na am na ci ay quelques blessés mais nekkul lu grave ay blessés yu ndaw la rek euh, barrière bi daanu daanu ci ay nit la mais nekkul lu grave waaw topp waaye démb la ko sunu borom dogal am na nu mbégte béggee nañ leen ndeysaan Dakar instant noonu nga xam ne mooy borom la tëreuse day borom la treize. la treize. faral tey damaa jom faral tey damaa faral onze ba une matin. faral xale yaa ngi ci tali ñu naan ñu. xam nga ah. waaye loolu ma yéem. dama ko bokk ak ñi nga faral gars yi dañoo dawee ba fii. te sonn nañu yaatiwul. te réew mi ceyku. ceyku faral tey askan bi yëpp. bokk benn tribune ak président. Youssou Youssou ko way ñeneen football yaa mën a boole. yàlla na jàmm yàgg Sénégal. yaa a boole réew yi ci kafa ka yaa boole boole ñu ñu. wax na wax na woon de. tey lii ma tey dama damaa bëgg ci moom. waaye Fadel. Fadel damaa yaakaar koy takk ak Modou Lo Gris Bordeaux ndekete ñoom dong de. président nee na leen. nanu tekki ngemb ñu féetu bu noppee takkaan ngemb yi dugg ci làng. kon laa mujj jeexul. xam na lañ jëlee coupe bi danoo bennoo bokk yaakaar ànd ak Pastef taxaw Sénégal jaar si bunt bi yaa ngi dégg boo ko gis-gis yeewee askan wi. kii nay wax ay waay de moo tax wax kat Malick yaa nga noonu di wàcc ña ngay wàcc ci bis ba ña ngay defi yëf déedéet ña ngay wàcc ci bis ba ndeysaan l'histoire retiendra dara aha ah suba ci 16h. ndeysaan tey dañuy ñëw ñu war mhm. suba ci waaw ku def lu rëy am lu rëy dara ndama ni mel yàgg nañ koo topp boo xoolee 18h mhm. ba 1h du matin 1h mhm. et demi bëggoon na ko ah, Omar Gueye Sène bëggoon na ko Jules François Bocandé bëggoon na ko bëggoon na ko Joseph Koto dem barki dem bëggoon na ko Bruno Messi bi ñëwoon à 2002 bëggoon na ko waaye lii mooy réew mi. dama ni wax ne sànq damaa ñëw ba yoon bi. ndeysaan am ci terrasse ku ku ma tegal photo Bruno Messi ak Pape Bouba Diop. sama yaram daaw la tag de la tudd. ci Aliou Cissé mooy réew mi de Aliou Cissé am na ndam de Malick Maytul barrière bi wóorul amoo entraînement Malick Maytul amoo entraînement barrière bi worul non amul entraînement non amul entraînement. sa sapeur yaa ngay évacuer rek sapeur ke yaa ngay évacuer nu bokk ndey bokk baay Aliou Cissé nekk nit ku baax man ma estimer ko ndax kenn du ko wax ba mu tontu lii rek la bëggoon mu yóbbu nu final rek noppi wax la noppi wax la ba pare nag def fi loo xam ne kenn defu ko fi ndax ku nekk jaar na fi temps Senghor temps juuf Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall ñëw mais kenn du Lam Tooro Buudu Gédel moom mi nga xam ne dafa ñëw jig Sénégal ndax xam nga président dangay ngay jig sa réew nga ñëw indi fi loo xam ne kenn indiw ko fi man maa ko tuddee meilleur président limière de l'Afrique te barke démb rek lañ ko décorer président Afrique yëpp toog loolu man maa ko tuddee man Georgette ragal féete day xañ a wërsëg ndax dafee deful kenn deful ba pare nag jour yi tamit ma leen di ñaanal gudd fa nag wér ñoom ñëpp boo limee da ngay juum ñoom ñëpp ku ndaw ba ki ci gën a tuuti ba ki gën nekk mag ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax di laa sant may jarbaatu nag Bruno Diatta kontaan trop sama nijaay def fi loo xam ne ci réew mi kenn defu ko fi mu ngi ci dëgg mu ngi ci fen mais moom lii rek la bëgg jàmm rek ci jàmm rek lay dox may ñaanal nag président Macky Sall yàlla may ko wér ak gudd fan ba liggéey bi mu yor mu yeggale ko ci jàmm ak salaam sama xol sedd na. di ñaanal Matar ba kooku moom boo ko waxul sax kooku sama nitu yaa sama nit la. dama ne ko sa ministère ci lañ amee arène nationale. doo ma déglu Matar ba Matar ba sama xarit la sama frère la sama ñijaay la bu may recevoir bureau am ma sens interdit. nit ku baax te lu mu def loxo loxo ndey jooram. bi loxo sànq dama ne ko Matar Ba sa ministère ci lan amee ci lan amee arène nationale ci lan amee euh, coupe d'Afrique jigéen di wóor. déggoo li ma la wax Ba ba mu nekkee ministre ci la am arène national dem coupe d'Afrique jël coupe bi ànd ak moom mu ñëw kenn du Matar Ba wax ko ci kaw waaye ñun nag géejawaay danoo xeex ba gañe Racine Talla dafa xeex ba jël gañe géejawaay ñun